mbokk yi teewlu seen chaîne préféré seen njëriñ TV dal leen ak jàmm seen vidéo bu yees bi nag dañuy door suñuy kàddu rek mbooloo mi ngeen gis mu bari loolu du kenn ku dul maître Ngagne Demba Touré mi demoon Mali daal dinay ñibbisi ñibbisi betteel boo xam ne ñu bari ña ngay way di yuuxu naan Macky am nga problème ndax Mbappé dellu si na muy juriste di ko xam ne xam-xam màcc na ci diine waaye màcc na ci wàllu politique ci wàllu droit am yar ak teggin waaye nag am influence ci képp koo xamante ne ndaw yi Pastef nga wala ndaw moo xam ne partisan nga ci parti bi di wax mbokk yi nga xamante ne yéenay bàyyi xel seen chaîne préférée seen njëriñ TV Ngagne Demba Touré yi nag ak ñëwam daal mbetteel ak mbëggeel gu nga xamante ne ndaw yi askan bi am nañ ko ci moom mel ne nag xeex bi day door a door ndax ki Sall ci boppam amatina problème mbokk yi ñu bàyyi xel vidéo bi teewlu ko partagé ko aimé ko ngir ñu bëri mën cee jot discours bi nga xamante ne moom Ngagne Demba Touré def na ko yëkkati ko ci kanamu ñi nga xamante ne waa Pastef lañu GPS bu Grand Yoff teeru ko teeru bu am solo waaye nag nii rek la mën a demee ndax Ngagne Demba Touré day ndaw mu xereñ moo xam ne réewum rek jaral na ko lu ne.